maaleykum mbokku sénégalais yi ñoo ngi leen di ziare yéen ñëpp di leen nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam tey nag di am mbégte fii ñu nekk Flores Touba Argentine ñëw fi fekk fi mbokk sénégalais yi bëgg waxtaan ak ñoom ci màggalu Serigne Touba gi nga xam ne moom la ñuy def fii nii Flores. kenn ku ci nekk xamoon na ne màggal Argentine saa bu musaana jot ñun ñëpp dañ koy def suñu biir kër yi wala ñu defee ko fële nga xam ne moom mooy hôtel yi wala ci biir stade yi ren nag. suñ borom moo wàcce benn balaa boo xam ne fii Argentine kenn mënta def dara mu nekk loo xam ne tamit lu doy waar la lu métti muridi la waaye nag alhamdulilah bi ñu suñ borom defale am xel ba ñu mën di xalaat ku ci nekk tey ji di feetal màggal gi sa kër tey ñu ñëw fii Flores kër ñoom Fallou Thiam mbokk ak mbokk sénégalais yi nga xam ne ñoom la dëkkal ki nga xam ne moom mooy Bouba Thiam mi ngi ci kër gi ñi nga xam ne ñoom ñooy ay Baye Mor Guèye ak Baye ak Baye Ndaw ak yeneen mbokk Sénégal yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk bu ñu limee ñooñu rek lim nañ ñëpp ak maa jéey ak Khalifa Ndiaye ak ñi fi nekk ñëpp rek ñu nekk ay taalibe yi Serigne di liggéey ngir jëmmi sëriñ Touba gi rek tax nag ki ñu dendal ku nekk xam na ko kenn du ko présenté ci dëkk bi mu ngi tudd Fallou am ñu ñëw fii këram mu nekk taalibe sëriñ Touba nekk taalibe Sëñ Fallou ñu ñëw fi ak moom bëgg a waxtaan ak moom ci màggal gi fàllu ñoo ngi lay ziare. waaw Ndiaga maa di siyaar euh, cameraman bi góor a mm-hmm. di siyaar mbokk taal bi fi daje yëpp. Mm-hmm. di ñaan yàlla borom bi defal ñu jàmm tawféex fan gudd ak wér. amiin sutura sox dak ci barke Serigne Fallou. amiin macha allah mu nekkul am solo waaye Fallou tey mbokku taalibe yi nga gis sa kër ñoom ñëpp di taalibe sëriñ Touba nga dëkk fekk say nawle ñu ñëw ñëw fii sa appartement di fi def màggal gi tey Fallou lañ nga santir bi nga gisee mbokku taalibe yi nekk fii ci sa biir kër. mbégte mbégte mbégte mbégte goo xam ne nii am na tàmbali mais kenn mënul natt yamu yemukaay bi. Mhm. ndaxte lii dafa neex. ndaxte borom bi def na Argentine chaque année yàlla def na ne màggal gi dañ ko daan dañ ko daan dundal bu baax a baax a baax. Mhm. daan koo ànd ak mbokku taalibe yëpp Argentine gi yëpp. Mhm. waaye borom beeg ay dogalam. ren loolu antuwul. dëgg la li tax antuwul ni nga ko waxee sànq balaa bi nga xam ne ji wàcc na suñu kaw muy pandémie bi ñu nangu ko lool xam ne borom bi xam naa moo ko dogalee nii ba tax na ne màggal yi nga xam ne dañ ko daan def ensemble doon ko defee mbooloo daan jëli saal wala ñu jël istaat di ko ci dundal bu baax baax a baax a baax ren loolu antuwul tax na kenn ku nekk fi mu nekk nii ñu ngi def suñ kéemtalaay kattan li nga xam daan nañ ko dund ensemble fi mu nekk tey ñu ngi koy dund ci biir kër yi dëgg waaw daje nañ nag def nañ suñ kéemtalaay kàttan ngir ngir bis bi jag. ndax su ñun amuñu lu dul sëñ bi. dëgg la yeewu nañ bin yeewoo ànd nañu ak waa kër gi ànd ak mbokk taalibe dëkkandoo yi ñëpp teew nañ. ñu jàngi far xuraan jàngi fi xasida berne comme ni ko sëñ bi sëñ bi sëñ bi bëggee rek. dëgg la di ñaan yàlla bépp jaamu yàlla boo xam ne dund nañ ko tey ci bis bi. Mhm. muy arxuraan ji muy xasida yi muy berne yi. di ñaan yàlla nañ ci daje ngërëmu sëñ bi. amiin barke si Abou Khadim. waaw di yëpp. Mm-hmm. di ñaanal julit yëpp. rawatina ñi nga xam ne tey ñu ngi yeewoo fii ci Argentine. Mm-hmm. di ñaan yàlla bépp jafe-jafe. boo xam ne tey jii ñu ko fi dund. Mm-hmm. yàlla nañ ko yàlla nañ ko borom bi jeexalal. amiin di ñaan yàlla lépp loo xam ne ñu ngi koy mbébét ci dëkk bi. yàlla nañ ko borom bi nooyalal ci barke sëñ bi. amiin barke si di siyaar mbokk taalibe yëpp. di ci jiital jëwriñ sa Talla Sall. ñëpp rek bàyyiwuñu kenn suñu limee amaana mën naa bañ a mat dëgg la di ñaan yàlla yàlla defal ñu jàmm defal ñu tawfeex defal ñu fan gudd ak wér su sox dak ci barke sëñ Fallou di ñaan borom bi yàlla nañu yàlla nangul suñu màggal ci barke sëñ bi maa ngi siyaar ñëpp di màggal ñëpp di tuubal ñëpp mhm. jërë ngeen jëf jërëjëf di kontaan bu baax ki nga xam ne moom mooy euh, Fallou Thiam ñu fekk ko fii këram mu am ay yeneen mbokku Sénégal la tamit yoo xam ne ñoo ko Fallou ñoo bokk kër gi ne kay mbokku taalibe ñu am fi ay gan nag ñoo xam ne dañu fee ñëw macha allah ñu bari fi ñuy sant yàlla lool nag ci ñëw gi ñu xam ne ñoom tamit ci leen fi ñëw waaye dañ leen di jox kàddu gu rek comme ku mel ne euh, Saam mi ngi fi. Baddu tamit mi ngi fi Saam jóge fële nga xam ne mooy retiro nekk taalibe sëriñ Touba ñu ñëw laaj ko mbégteem ci màggal gi ren noo ko gisee. asalaamaaleykum wa rahmatulah. maa di ñaan Sëriñ Mountakha Bassirou yàlla na fi yàgg te wér. di ñaanal bépp jullit. Mhm. bépp taalibe bu nekk fi fii si Argentine di kontaan nag si. ci li ngeen ma tegal micro bi nii. Mhm. di nuyu borom kër gi Fallou Thiam. ak Adama Thiam ak Mbaye Dieye ñi ma fekk si kër gi ñoom Khalifa. Mhm. maa ngi leen siyaat ñëpp a ah, gis nga ne màgg rek moom ni la demee. wax dëgg fa yàlla comme ni ko Fallou waxee rek. daana luy ay esaat ak euh, ak ay saal. dëgg la waaye comme que ren moom dina demee. dëgg la ko suñu borom dogalee. Mhm. kon ko ko santee rek ndax ko ko santee daal. waaw di ñaan suñu borom waaw. di ñaan suñu borom daal feebar bi nga xamante ne mooy coronavirus jóge fi ak jàmm. Mhm. ba ku nekk dalawaat say jiite. ndeysaan loolu daal lay ñaan. jërëjëf di kontaan bu baax ci wax ji nga xam ne moom la Sam wax mu nekk nit koo xamee tamit ku am Pastef ci yoonu kër Sëñ Tuubaa bi saa bu màggal musaana jot foo dem di nga ko fa fekk ñoo ngi koy sant bu baax di ko gërëm am nañ fi tamit ki nga xam ne moom mooy sëñ xaadim moom tamit nekk suñu mbokk nekk ci dëkk bi ñëw daal di tamit màggal si Abdourahim tamit mi ngi fi ñu nekk ay nit ñoo xam ne ay Baay Faal lañu am suñuy mbokk yi tamit yoo xam ne ñu ngi jóge fële nga xam ne tamit moom ñëpp nekk biir Argentine rek bu limee dañuy juum ki nga xam ne tamit moom mooy mbay nekk suñu grand mu nekk nit koo xam ne nit ku oyof la nit ku yaatu wax dëgg yàlla lépp lu mus a def lu nekk buñ ko gisee suñu xel dafay dal mu nekk fii ci dëkk bi nag oyof di dox ci diine nekk ci jub tey jubal moom lañ ñëwoon tamit waxtaan ak yéen parce que moo nekk fii suñu garant mu nekk tamit nit ku oyof nit ku neex a dëkkal loo wax mu ree ba pare di ñu xamal àdduna di ñu xamal retour Sénégal kat dañ ko war di xalaat yooyu nag bu nu amee occasion yu mel nii duñ ko ñàkk bañ a mën a wax waaye dañ koy laaj ci mbirum màggal gi rek mbay ñu ngi lay ziare. ah sëñ Njaga ñu ngi siyaar jullit yëpp waaw ah, siyaar bi nag ñu ngi ciy jiital sëñ Muntaxa Basiiru xalif général kulli murit waaw ak umma islamique bi yëpp yëpp yëpp ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di mhm. ndokkeel ñëpp tamit ci bis bi macha allah waaw di siyaar waa kër gi yëpp mhm. sénégalais yi fi nekk yëpp ci kër gi mhm. waaw ci appartement 3C ba ñëpp ñëpp ba ca suuf ca maajee ndeysaan waaw gars yi ànd nañ ko wax dëgg yàlla li nga xam ne biñ ko mébétee yàggul. ci mhm. fan yi rek lañ ko mébét. Mhm. mais gis nga tey ni ko gars yi àndee ñoom ñëpp ñëpp ñëpp. waaw démb ba léegi. Mhm. ñu bërki démb sax laay wax ba léegi. kenn toogul gars yi yi ci war yëpp yëpp yëpp yëpp. waaw def nañ ko jàng alxuraan bi nga xam ne li nga xam ni moo ci gën a nekk farata gi. ak xasida yi. tey bi ñuy xëy fekk na sax appartement bi gars yi jógagun mais gars yi ñëw soññ. presque sept heures fekk na gars yi ñëw soññu gars yi ba lépp fi mu ne nii yemb ba nii nii nii gars yëpp ànd ko di ko def ci anam bu rafet a rafet a rafet bu dul woon maanaam mbas mii fi ne kon gaa yaa nga ca benn bërëb ñëpp sénégalais yëpp dajaloo waaw àdduna bi yëpp di ñu gis mais nag lii la yàlla sopp waaw lii la yàlla sopp te am nañ ci yaqin ni bu màggal gi di dem ni muy demee nii noonu la feebar bi di àndeek moom di dem mm-hmm. quoi waaw ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw di ñaanal gone yeeg ñëpp ñu ci réew mi seeni mébét mm-hmm. liñ fi bëgg yàlla bu yàlla tas yaakaar waaw yàlla na na lépp daal dooni xéwal waaw di ñaanal ñëpp mm-hmm. ànd bi rafet na niñ ko àndee màggal ko moom macha allah quoi waaw lii la ci sëñ bi bëgg ànd bis bi màggal ko ci sant bernde jàng alxuraan jàng xasaayit Mm-hmm. waaw yàlla na yàlla defar mbir yi ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp rek waaw di sant di gërëm ñëpp chaar nañ leen bu baax a baax nag amin barke Seexul Xadim ngeen dégg mbay noonu mu waxee mu nekk suñu mag nekk suñu kilifa euh, saa su nekk tamit ni la nekkee ñun di ñu xamal di ñu jàngal di ñu wax fi ñu war a teg suñu tànk am mbégte nag lool dégg ko ci kàddoom yi ndax moom dégg ko ci mel nii sax xam naa ne yombul waaye tamit lépp rek bisub Serigne tubaab bi moo ko waral ba tey rek euh, ñu toog euh, ki nga xam ne moom mooy euh, Mbaye Mor Ndaw toog ak ki nga xam ne moom mooy Cheikh Bombali ñoom ñu dëkk ci kër gi nag bokk waa kër gi mbir mi nga xam ne moom mooy sababu màggal bi ku ci nekk jël ci sa ñaq jël ci sa doole def ko ngir jëmmi Serigne Touba gi ndax Serigne Touba moom lu ko waaye defal moom nga xam ne moo amuk fay waaye dañuy jox kàddu gi ki nga xam ne rek moom mooy Cheikh Bombali Cheikh ñoo ngi lay ziare. waaw Ndiaga ñi ngi lay fay. di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di siyaar mbooloo mépp. ginnaaw bi ñu ñaanalee sëñ Mountakha Mbacké mu yàgg fi te wér. ñu ngi ñaanal Serigne Cheikh Jëmb Fall. mu yàgg fi te wér nga xam ne mooy xalifa Baye Fall yëpp. di siyaare mbokki taalibe yi fi daje yëpp. wax dëgg yàlla am kontaan rek. ndax màggalu tubaab moom dafa nekk loo xam ne nii. Euh, heure bu dikkee rek murit yëpp dañ ci yëg seen bopp. su la su ñëw nag daana tase ci ay barab ñu ñëpp dafa dajaloo dafa nekk. Mhm. waaye yàlla suñu borom moo dogal ne ren daa am jàngoro ju fi ñëw muy tawat waaye nag. loolu mbir yàlla suñu borom la xam naa yàlla suñu borom mi ko fi indi mën na ko fay jëlee mhm. ca rafet nañ njott ne bis bu màggal gi weesoo bu mhm. soobee Serigne Touba jàngoro jeeg jafe-jafe yeeg lépp dina dem bu soobee Serigne Touba kon nag wax dëgg yàlla ñi kontaante di gërëm ñi nga xam ne ni ñoo ñu fekk si ñi nga xam ne ñëw nañ fi di dundal bis bi di fi jàng xasida di fi wax ay astafirullah ak ay laa ilaaha illallah ñi ngi ñaan daal képp koo xam ne nii daal indaa la nga loo xam ne nii lu la jaaxal la yàlla na ko Serigne Touba Mbacke faj buñ fi jógee tamit lépp loo xam ne nii mi ngi nekk ay jafe-jafe ci dëkk bi ak ci àdduna yàlla na ko yàlla ak Serigne Touba Mbacke jeexal ñi ngi siyaari mbooloo mépp di la siyaar yow mitim di siyaari góor di siyaari ñi nga xam ne nii ñoo nekk Argentine ñëpp di fi ñaan jàmm ak tawfeex ak ci àdduna bépp jërë ngeen jëf tawfeex tey tay sir mm-hmm. waaye bala ñu la euh, bàyyi tuuti rek dafa may kàddu yu ñu lay laaj mm-hmm. euh, keroog bi nga déggee ñu xamal ne ne euh, màggal gi duñ ko mën a def ci bari bi nu ko doon defee lu mel ne ci stade yeeg ci hôtel yi en tant que murit bu tàmm di màggal yi di ko ñi koy def ci ak ndaje lan nga sentir. waaw loolu moom bi ñu ko yéegee wax dëgg yàlla am na lu ñu tiis parce que mbooloo dafa nekk loo xam ne nii yàlla suñu borom da ciy waat yërmande mm-hmm. waaye mbooloo mu daje mm-hmm. ca def ñu li sëñ bi santaane mbooloo mu néew ca def li sëñ bi santaane moo ko gën mm-hmm. waaye yàlla suñu borom nag moom moo dogale nii bis bi kon nag nan ko comprendre noonu ci xam ne wax dëgg yàlla tey lépp luñ fi sàkku si am nañ ko barke Serigne Touba man yëg naa ko ci sama yaram ci xam naa ñi fi nekk ñëpp yéen a koy seeral ñi ngi ñaan daal yal na yàlla def mhm. bu beneen at dikkaatee mhm. ñu mën koo daje di ko def comme na ko daan defee mhm. ba nga xam ne lépp jàngoro ak bépp jafe yàlla suñu borom jëli ko fi ñi ngi kontaan trop nag di am mbégte jërë ngeen jëf macha allah mu nekk mu nekk lu am solo loolu nga xam ne moom nga dégg Cheikh Bombali wax ko waaye tamit am nañ fi suñuy grand yoo xam ne ñoom tamit ñi ngi fi euh, ñu nekk ay murit nekk ay taalibe am fi tamit suñuy mbokk yoo xam ne ñoom tamit ñi ngi fi nekk taalibe Serigne Touba. bis bi rek ñor leen ba tax ne tey kenn ku ci nekk demoo defi lenn pour ñëw ci màggal gi teewlu ko euh, kii ñu toogal nag euh, mi nga tudd Baye Ousmane Mbaye nekk fii Argentine ñu bëgg koo jox rek laaj ko ci kàddu màggal gi nga xam ne ñun ñëpp moom moo ñu fi dajale Baye Ousmane ñu ngi lay ziare. Ah, Ndiaga ñu ngi lay ziar di la delloo ziar di jiital gi ziar beeg nuyoo bi sëñ Muntaxa di ñaan yàlla suñ boroom mu yàgg fi loolu tawéer barke Sëriñ Saaliw euh, màggal gi nag def nañ ko comme ni ko sëriñ bi digle mooy dajaloo nañ jàng nañ alxuraan jàng ay xasida bernde comme ni ko sëriñ bi diglee waaw noonu la sëriñ bi taamoo woon ñu dundale ko bis bi dundale nañ ko bis bi nag ci contexte bi mu laaj ku nekk xam na ne jamono ji ni mu mel ak euh, li nga xamante moom moo nekk ci àdduna bi waaye ñun Serigne dimbali nañu ba ñun xamuñu dara lu dul sëriñ bi. dëgg la sëriñ duñ ko jaawale ak dara te duñ ko boole ak dara. ñu ko sëriñ bi digle daal dundalee nañ ko noonu. dëgg la waaw. mu nekk lu am solo mooy euh, dëkk bi jamono ji fi mu toll nii rek lañ ko mën a màggalee mu nekk loo xam ne tey jii ñun am nañ ci fierté. nattu la bu wàcc ci àdduna bi waaye nag teewut ñu ni nga màggal sëñ màggal màgg nga xam ne suñ Tuubaa moo ko wootee mu nekk loo xam ne lu am solo la waaye dafay am ay laaj yeeg lu ma lay tourner di la ko laaj en tant que murit bu tàmm dem màggalu Touba en tant que murit bu tàmm màggalee fii nii Argentine ren màggal gi amul Argentine ñoo dañ koy feete suñuy kër en tant que murit lan nga sentir. Euh, sentir nañ lu xaw a nuru lu metti waaye suñu borom dimbali nañu ba daanaka ñun ay métteeg ay neex yooyu sax xamuñu ko ci ndigalu sëriñ bi ndax lu ñëwee rek dañ ci xool la nga xam noonu la ko sëriñ bëggee ñu defee ko noonu maanaam wéet gi ak wéetligu ci daanaka ñun amul solo ci ñun ni jàpp ne ndigalu sëriñ bi rek dañ koy jëfee ak circonstance yu ñu mën a fekk ala dañ koy jëfee noonu mm-hmm. li ki des nag mooy amaan daan nañ dajaloo ci ay saal daan nañ dajaloo ci ay stade mais tey gi saal yeeg stade yooyu yooyu yëpp daanaka xàmmee ko ndax li ëpp solo ki mooy xool bi rek te ñun dim sëriñ bi dimbal na ba suñu xool it mm-hmm. leneen nekk ci dudul sëriñ bi waaw ñu ngi koy dund daal ci xool bu sedd ak fierté ak santaat ki sëriñ bu baax daal ñu noonu loolu daal dëgg yàlla noonu lañ koy dundee santaat sëñ Tuubaa bu baax nag waaw. jërëjëf mu nekk lu am solo loolu nga xam ne loolu la euh, Baye Ousmane wax mu wax ay kàddu yu am solo parce que murit li mooy jëfam fépp fu nga xam ne foofu la Serigne Touba woote ñu dem fa bu dee liggéey la ñu liggéey ci bu dee joxe tamit ñu joxe ci waaye euh, ñoom ku ñu dendal koo xam ne mu ngi tudd euh, Papa nekk fii di taalibe Serigne Touba nekk murit nekk ci dëkk bi tamit nekk góor yàlla euh, il faut que tamit ñu laaj ko ci màggalu seexul xadim gi taxawaay beeg mbir yëpp rek nan la demee Pape ñoo ngi lay jaare waaw ñu ngi lay delloo ziar bu baax njaga di ñaanal sëñ Muntaxa sa borom bàyyi ko fi di ñaanal mbokki senegal yi fi nekk yëpp sa borom may leen ak wér ak gudd fan ba lépp lu fi wut si rek sa borom man leen ko yombalal si barki Seydina Mohamed màggal gi moom ñu ko dundee vraiment neex na daal di ñaanal sa defal ñu jàmm ak wér ba wane la waaj ñoo sunu njaboot si jàmm ak salaam ndax lii tawféex la daal mhm. fekke woon nañ ko daaw fekke waat nañ ko ren mhm. yàlla nañ borom bi defal fan wu gudd ñu fekke ko ay at yu bare bare bare ba di koy màggal màggal yu bari ci kàttanu borom bi waaw xam man nag mënu maa wax ci micro daal loolu lay problème bi dëgg la jërëjëf kontaan ndeysaan euh, xol bi moo sedd parce que murit moom saa suñu wootee ci yoonu kër Sëñ Tuubaa bi rek nga bëgg cee wax daanaka da nga ciy lottu mu nekk loo xam ne tamit lu am solo la euh, ñi nga xam ne tamit ñoom ñoo moom télé bi yàlla suñu borom def ñu am ak Pastef ak yëg-yëg jug déplacé wu dugg ci kër sénégalais yi waxtaan ak ñoom laaj leen ci wàccukaay ma waajukaay màggal gi. ndax euh, murit moom fépp fu mu nekk fu nekk dafay wane Serigne Touba jëmmam waxam kàddoom lu mu mënti doon tamit day nekk li nga xam ne moom mooy euh, melokaanu bi nga xam ne moom la Seexul Xadim bëgg ñun ñu mel ñu mel ko euh, di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké. suñ borom yàggal ko fi lool tànn ko wér di ñaan yàlla balaa bi nga xam ne moom moo wàcc ci àdduna bi yàlla fi jugee ba ñun ba ñu mën a delluwaat suñuy activité parce que xew-xewu Seexul Ahmadou ba yi moom fu ñu fu ñu fekk ñun dañ koy bëgg di màggal looloo tax ñi ngi fii ñi fi nekkoon bin xëyee jàng nañ ay xasida ñi jàng alxuraan ñii di wérdi ñii di sikkar ñii di nekk ci li nga xam ne moom la sëñ bi digle ba tax ne tey suñu cameraman bi ñëw mooy euh, Touba Argentine Euh, directeur bi di euh, Gora ànd fekk ki nga xam ne camara maanaam la Baye Ousmane waaw man nag képp ku ma xam xam ne ne maa ngi ci big di la ci big di la laay nekk waaye big di la ak euh, Touba Argentine benn la ñun ñëpp ñoo bokk lu ñuy yëngu ba tax na rek surtout ma sax ndajam Serigne tubaa moom lu ñu ci waay soxla yaa ñu moom di sant bu baax di gërëm bu baax di ñaan yàlla na télé bi jëm ci kanam ba lépp lu mu bëgg yàlla na ko ko Seexu Xadim defal barke borom Touba jaa jëf jaajëf Lamine Samba. yaa